waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax dinti julli ci yonent yàlla Muhammad lii maa ngi yëkkatiwaat kàddu na ma yëkkati woon kàddu balaa bisu élection yi waxtaanoon ak waa dëkk bi waa Thiénaba nuyu bi sëñ as di xalif général Thiénaba yëkkati woon sama kàddu ne ba turam ak taxawaayam ci réew mi dafa laajul woon ñuy seetaan ba élection yi keneen gañu ku dul benn bokk yaakaar candidat président Macky Sall ba mu fa teg di ko bañ a gañe yàlla def woote boobu ñu woote am na ñu ko dégg nangul ñu ko jóg taxaw ànd ak maire liggéey bi meer bi def muy euh, sa suñu mbokk taala Diagne liggéey bu rafet bi mu liggéey ci Thiénaba bañ a naax taala taal leen loxo ji jóg liggéey ak nit ñi jóg liggéey nit ñi wax nit ñi yàlla may may na ko ndam tey kon waa Thiénaba woote ba ma woote woon dégg nañ ko ànd ci taxawee taxawaay ba sama mbokk yi ma waxaloon maa ngi leen di sant bu baax a baax ba sama xarit yi ma waxaloon maa ngi leen di sant bu baax a baax sama nit ñi ma waxaloon maa ngi di sant bu baax a baax wante di sant maire Talla Diagne moom mi leen tàllal loxo ànd ak ñoom liggéey liggéey bu rafet ba yàlla may ko ndam président Macky Sall am ndam cene ba kon loolu ñu ngi koy sante yàlla di sant nit ñépp ñi ci jàpp di sant Talla félicité nañ ko yàlla na ko yàlla jàppale mu liggéey liggéey liggéey bu gën a rafetaat ba yàlla mayaat ko ndam caala ku yaatu la ku ku ku ku mën a uufe la koo xam ne nii bëgg na mbokk bëgg na lu baax moo tax yàlla may ko lim ko may moo tax yàlla sagal ñu ba suñ kàddu googu doonu tey kàddu gàcce maa ngi sant waa Thiénaba di sant ñëpp ñi jàppale taala di leen wax ne ñun li ñu fas yéene mooy dëkk bi jëm kanam di di feddiwaat sama kàddu ne maa ngi koy félicité di ñaan nit ñi nag nañ ko jàppale nañ ko jàppale nañ ko jàppale waaw loolu moom mooy mbir mi nañ ko jàppale mu liggéey ndax gañe na ba pare yàlla dogal na loolu nañ ko nangu jàppale ko loolu daal laa amoon ci lu may euh, wax di di di sant yàlla bu baax a baax a baax wasalaam